lañu war a mën a bàyyi ci xel bu dal mu choisir ñoo xam ne ñoom la war a kii mais c'est pas aussi mu enfermé wu quelque part mu génnee liste bi ne lii mooy liste bi je considère que ci àndu nawle wara nañ mën a waxtaan suñu biir hmm. comme entre euh, responsable ñu xool lu mu gënee ñu def ko noonu te moom ñu jiital ko ci mbir mi mu mu doxal affaire bi donc loolu ñun war nañ ko na mën a nangul loolu rawatina ñoo xam ne ñoo bokk ak moom donc là aussi parce que lu mu bëgg a def te ñee war ko tere mu def ko du luy luy gën ci ci coalition bi te bu boobaa aussi comme président Bassirou Diomaye dafa jàpp ne moom dafa war a tëdd njaaxanaay waaye nag li war a mën a tax mu conduire sa politique ñu xam nañ ko parce que ñu ànd ak moom euh, baataral ko campagne ba mu falu donc comme xam nañ ko war nañ ko mën a gunge ci loolu pour que véritablement loolu mën a ànd voilà euh, euh, remercier la ci invitation bi ak Euh, li nga jàpp ne ci bés bu am solo bu mel ni tey. Mhm. Euh, war nañ mën a sekk waxtaan. effectivement ma xalaat ne simplement parce que loolu laa ñaanoon yàlla lu ma fi wax euh, askan wi dina ci gis njëriñam. parce que mhm. xam nga Sénégal il faudrait que ñun ñëpp ñu jiital Sénégal. Mhm. ñu bañ jiital suñu bopp bañ a jiital suñu parti. dañu jiital Sénégal intérêt Sénégal te jàpp naa ne tey jii yàlla inspiré na. peuple sénégalais bi ba ñu fal président basiru Diomaye fay te yàlla xam na ne boobu ba léegi li muy teg ci ay jéego euh, taxul benn sénégalais naan xëy na kii du kii moo fi waroon nekk mais yàlla tànnal nañu njiit boo xam ne laaj na pour que ñu accompagner ko ci loolu euh, tey def na un discours euh, de haute facture ci temps bu xaw a gàtt mu wax lu loo xam ne moom mooy farata bi mu yem ci wone ne également dans son discours que ak nu mun munta il va respecter la séparation des pouvoir mm. je crois que ñëpp ñoo xam ne amoon nañu crainte mm-hmm. euh, tey seen crainte boobu dafa war a estompé wu mm-hmm. xam ne fii c'est c'est c'est c'est la séparation des pouvoir mm-hmm. te li yoon war a mun a def moom rek lay def euh, lu ci des nag euh, comme élection législative yi c'est le 17 novembre donc je pense que en suñu coalition bi war nañ mën a yëngatu. na mën a yëngatu. ñu ñu waxtaan. ñu lu ñuy waajalee. dina ànd ak ñu waajalee élection bi. avec une coalition Diomaye mais nag li yëpp gars yi dañuy waaw ma xam ne mi ngi mi ngi mi ngi noonu rek quoi mais de toute manière. waaw waaw mais mais de je crois que yooyu yëpp c'est des mm. c'est des. c'est des préoccupations yoo xam ne on doit les taire mu mmh. jiital Sénégal mmh. xam ne li li tax président Bassirou Diomaye dem bi tas assemblée nationale lu am importance la ñu war ko mun a fekk ci loolu jàppale ko pour que li mu séntu ëllëg mu mun a mu a antu ñu fàtte suñu bopp mmh. c'est ça qui est important euh, premier ministre Ousmane Sonko moo jiitee PASTEF mais boo xoolee dans sa trajectoire Pastef mosul wet ci ay élections à chaque fois dañuy dem vers des coalitions mm. je crois que la dernière en date c'est la coalition Diomaye mm. donc euh, xëy na war nañ ko mën a defaraat ça moom c'est c'est absolument clair mais aussi euh, moom la moom mooy tey jii identité président Bassirou Diomaye donc euh, il faudrait pas que ñu bàyyi ko ci ginnaaw wala ñu fexe ba mu am ay frustrations au sein de la coalition ce serait vraiment dommage pour euh, voilà c'est à éviter. alors euh, Siré Sy. absolument bàyyi la rek looy looy jeexale. absolument en fait je. yéen moom yéen ñu d'abord ñun. voilà ñii dañ fi dañ leen fi très bien très je reprends la balle juste rebond mais lenn ni moom potum potum biir la. danañ ko régler. mais juste pour dire que euh, la réussit ou non de Pastef du mouvement révolutionnaire. Euh, du président Ousmane Sonko euh, du président Diomaye donc Ousmane Sonko président de Pastef premier ministre euh, dépendra aussi en grande partie de sa capacité à s'adosser à une coalition en tout cas l'exemple de Macky Sall avec Benno Bokk Yaakaar. Mhm. édifié nañu c' est Macky Sall lu mu mën a def Sénégal rek c' parce que daa amoon wéeruwaay moo ko mën a may lu lu bari et puis aussi ajoute que au niveau de la coalition on a des expertises de toute de donc di leen di associer même à titre d'observation ou de remarque euh, dana ci dana ci baax quoi et ne mm-hmm. pas les considérer comme Euh, une coalition électorale ça veut dire que bu élection jotee rek ñu leen jóg leen quoi mais dans la définition dans l'élaboration et la conception des politiques publiques euh, y que des anciens ministres et cetera et cetera je pense que à la faveur des élections législatives euh, danañ euh, ci apporter les les les les euh, rectificatifs Euh, nécessaire di profito tamit di nuyu euh, madame Sall. madame Sall euh, waaw Madeleine Sow. kooku agent Madeleine Sow. waaw agent ministère de la santé la. d'accord xam nga ñun góorgóorlu moom suñuy affaire mu ngi noonu moo ma jëlee yéen déposé ma ba ci bunt bi fii quoi. Euh, fekk ma taxaw di xaar calendrier xam naa mu xàmmee ma quoi ne kii ah, góorgóorlu waaw ah, kii de góorgóorlu la ma ne ko maay seen président de <laughs> mi ngi nii nag xam nga damay faral di tooñ nii góorgóorlu yi mooy li Souleymane Faye di ku ci nekk fi nga féete ak fi nga bëgg fa fi nga bëgg sa bopp laal féete mhm. ñoom nag ci mën nañ féete mhm. képp kuy góorgóorlu di ko ñafe rek bu leen neexee nag seen bopp ñu féetale ko ci Ousmane Sonko mais du tee moom <laughs> man ci man nañu féete d'ailleurs euh, quand je lui ai expliqué que j'étais en retard et j'étais invité à une émission donc dafa bàyyi activité mi yëpp te mi ngi woon ñi ba wakaam ñëw ba fii déposé ma donc je voudrais faire dama ko bëggoon def aussi benn clin clin d'œil euh, sant ko gërëm ko ko madame Sall madame Sall euh, Madeleine Sow agent Madeleine Sow au ministère de la de la santé Madeleine Sow madame madame madame Sall madame Sall waaw ma ngi lay jaajëfal ñun ñëpp ci li nga indil ñu suñ góorgóorlu bi fii ba mu mën a fekk <laughs> tout à fait cant ak gërëm yàlla madame Sow moom moo gën a bàyyi saa wala jibi jibi balaa ngay tëj laa waaw am na sa benn naatango waaw waaw waaw bu ma bu ma def témoignage bu rafet ci yow. déedéet waay kooku daa mu nekk mu nekk M7 TV. Ah, waaw waaw waaw M7 moom samay xarit ñoo xam tudd Xaadim euh, bi ma def ko statut. ndeysaan ndeysaan mu def ci kii bu rafet. donc euh, maa ngi lay samay xarit lañ. waaw maa ngi lay yóbbante nuyom moom moo gën a baax ñoom Xaadim a baax a baax yow waa M7 yëpp. ah ñoom Cheikh Diabeeg ñëpp maa ngi effectivement li mu wax ci yow loolu laa fekk ci yow donc c'est-à-dire que <laughs> il n'a rien inventé il n'a rien inventé waaw waa M7 <laughs> M7 moom sumay xarit lañ ah. waaw parce que foofu moom pratiquement ñu ci bëri xam naa maag euh, suma suma nijaay góorgóorlu bi am na ñoo xam ñoo nekk doon kër ga fële kër gu ah. mag ga waaw convergence donc jërëjëf jante yow kenn du yow waaw ah. ñaan nga sawa jërëjëf waaw ba dee dama leen jaajëfal waaye nag di wax ne askan bi nañu bàyyi xel heure bi daaw ci lim ñu fekkoon Sénégal mënoon na fee doxe yàqu loolu maanaam biñ dundee ba di ko nettali. <laughs> waaw alhamdulilah rek maanaam lu ñu amati rek <laughs> nañu xam xam na yàlla wàccuñu. waaye nag di demande solennellement sama jaam bi woote njëkk woote sànq. muy président Serigne Mboup. waaw waaw Serigne Mboup lool. na ma jëlalaat oto bu dàq bi mu joxoon président si <laughs> joxaat ko ko te yàlla te te te ci diggante Cissé Cissé ak Mboubeen tax. man loolu bu ko defee. danaa kontaan ci moom waaw man daal sëriñ Mbuub na ma na ma na ma ko kii waale du mag fa waaw sama gaa ji moom day sama xarit te nitu kese la te moom wàññiwu ko dara loolu daal na ko def jàmbaar ko defee daal def na li ma neex. mais mais mais wala ñu ñaan Sénégalais yi ñu dugal ma assemblée bu ñu ma dugalee assemblée. non non loolu après la non non man maa bëgg déedéet man maa bëgg sëriñ boobu <laughs> man maa bëgg man. <laughs> Ah. jël oto bu baax non loolu te dàqaltewu teg loolu man maa bëgg sëriñ boobu. d'accord loolu parce que loolu bi mu amee <laughs> daf maa naqari. Ah, parce que venant de sëriñ boobu ak ni mu yooyu yëpp kii. Ah, loolu loolu kii wu ma léegi nag loolu damaa bëgg mu defalaat ma ko sama waa ji. d'accord waaw laa koy ñaanal fii laa koy waxee ci kaw njëkk nga ko waxee fii après sol daal yi gàmm gaa ngi nii profité jërëjëf Diorou Ndiassé ba da doon dallu dama laa gëj a jox parole de ba daa taxoon ngay nelaw maa ngi maa woon ci biir de ah. maa ngi woon ci biir xam nga boo amee <laughs> non maa ngi ci biir maa ngi déglu xam nga xam nga Siré moom dama koy topp saa su nekk te dama bokk ci mouvement góorgóorlu bi comprendre nga dama feeñu rek mais ci mouvement góorgóorlu président moo tax kon yeesu deere ci biir góorgóorlu waaye yow moom koy fi toll nii de nee na ko Baara Ndiaye de boo xam ne kenn bëgg ci bokk dé ci la ñëpp bokk moo tax fi toll nii moom la Pastef fu jot na nag ngir euh, ñu dugg parlement waaw <laughs> xam turu parti bi dafa dafa kii dafa des de. dafa des dafa nekk góorgóorlu yi mën naa nekk. comprendre nga. góorgóorlu ngir mu ne. waaw mën naa ne. waaw ngir mu ne la war a def nag. waaw mën naa nekk de. góorgóorlu mën naa ne. waaw kenn du wax xarañteef xarañte maanaam boo ko doon woow tey mu doonoon tur da nga naan lii ak xarañteef la mais boo naan ci xarañteem dama leen di dégg ñu bëri journaliste si bëri di ko wax xarañteem rek ngay wax yam ci da nga naan xarañteefam ñun koy nangu nañ waaye damaa xam ne boo fekkee lu waaye wax ci wolof nga jubbanti ah yaa ngi yàgg di liggéey ah, wax ñu daanakañu ci temps est-ce que amul professeur bu koy jox ay leçon de français ci suuf mu ngi nii boo waxatee nga jubbante nit ñi ci wolof man man man man damay wax ne la ndax góor la jigéen di man man tooñu ma leen di professeur Diante man damay wax ba pare ne ko nangam góor la am jigéen doo ñaari professeur ñaari man loolu fit de man fit boobu laa xamul fu mu ko jëlee quoi wala la ki ci waxoon nag ak tànk teg ko ca kaw daan escure man man proportif petit bébé rek jërëjëf Saawaram jaajëf jërëjëf jërëjëf c'est sérieux de day toog waaye toog na journaliste man président Siré moo may joxe cours jàtte dafa maa feral moom moom da ko bëgg waaye ni ma ko waxee daf may daf may écrasé mais jërëjëf Saawaram jërëjëf ah jërëjëf ziar aussi ah, jërëjëf saa su nekk dañuy kontaan di bokk ak moom plateau quoi vraiment saa su nekk fu ñu waaw waaw yow madame Ndiaye moom tey fi mu la jëlee garaaw na moom moom dañu ngi moom ba internet yi di la bind naan la wàññi sàqami bi waaw sàqami bi non damaa ruus sax sa ma la waroon naan kaf dama laalu ma ko noonu ñaar ñi ku leen di simbi rek laa yor sëñ bu boo ñëwee ma jox la ko simbi leen jërëjëf ah, doyen ah, Mamadou Lamine na la sumbi doyen donc merci beaucoup en tout cas vraiment moom il est très souple très disponible disponible mm-hmm. toujours cohérent également mm-hmm. donc plaisir la may bokk ak moom plateau comme ni ma ko waxee woon rek ci éducation la woon ba ci politique <laughs> yàlla na yàlla def jàmm ñuy gën di ànd rek ñun ñëpp ba dugg àjjana donc jërëjëf ak ñi ñuy seetaan itam jërëjëf ah borom borom euh, président góorgóorlu yi mooy Siré Sy euh, ñu koy jaajëfal baax a baax il a été très réactif et très disponible malgré dafa xaw am quelque lii rek embouteillage bee ko waraloon moo tax mu tardé saa wolof moom le le le disponible donc il est serviable euh, ak ñi fare woon ci wàllu xarala gi tuuti di ba ah euh, kii di euh, ñoom Ismail ñoom Assane ñi fa nekkoon ñëpp en tout cas ñoom Yankoba tout le monde bref tout le monde ah, Malick Aziz Thiaw Jili ñi jàppoon ci émission bi yëpp ba mu mën a daal di yemb du côté des euh, reporters yi nekk ci région yi comme ku mel ni Waaleek ñeneen ñi ñoom Lalla ñoom ñëpp gis nañ ñu jàpp ci émission bi Matar tout le monde ah, maa ngi lim moo tax maa ngi juum donc waaye cadreur journaliste ñi nekk ci régie beeg techniciens yi tout le monde ñu la direction